ñu gis ne Kara jamono yi si ginnaaw tuuti xalaat dajale woon ay xale si wàllu employé yoo xam ne dañ ko maye woon bu Kara leeral non loolu du maye ministre de la jeunesse moo def ay formation pavage wax gars yi mu may ma ci ma jox ko suma booy koñ ñu def forme ñu commencé demoon ba signé ji def seen business noonu la day liggéeyal ñun ay jeunes lañ. foofu liggéey bu amul foofu amul liggéey da nga ñëw di fayoo ko sax. loolu yow da kaa gis. waaw loolu nag man wax dëgg yàlla gisuma loolu moom day laaj da nga may laaj loo xam ne ay amul liggéey ñu lay fay par weer moom. loolu loolu Europe la am Europe nañ formation pavage gars yi dem signé ji arène nationale dem Dakar formation bi waru commencé ñi nga xam ne dañoo ñëwoon tabaski bi jege Korité bi jege ak fi ñu tolloon loolu ñu leen jox paas la. damay déglu noonu la demee nañ bàyyi yàqante loolu baaxul. su ma déggee ñi njëkkoon dem ñooñu paas lañ leen jox. waaw loolu paas la rek ak julli gi ñëw comme mooy loolu waaye dañ yàq. war ngeen dem ba foofu tamit nga jàpp màcce naan ko sama këyit a njëkk dugg sa këyit. ba ngeen def di bëgg bu ñuy waxtaan ñu bàyyi màcce quoi màcce moom. non loolu faaw ñu nga leeral du ma wax non non màcce dafa nekk géej waaye ma nekk géej waaye mu nekk suma rakk mooy dama dem ba si ba mu boole lu si bokkul. waaw te ay ay dëkkandoo lañ tàng ay dëkkandoo lañ moom mu jàppee woon ko man géej waaye laa dëkkoo Balla Gaye Fils de suma waay la Mbaye Tine képp ku dëkk géej waaye suma waay nga Papa Boy Djiné ñoom ñëpp sumay waay lañ waaye moom bu fekkee ñu ñu dëkk ak mbëri mag yi ñu dëkk ñu jox ñu cër ñu joxante cër fu ñu dajee di mbalak ma fekk ma ba pale Macky Sall toog nii jàkkaarloog ñun mu ne daf may cokaas pour xeex ak man foofu. si biir palais bi si bi. Eh. yaa may déglu. xam nga xam nga moo tax ndeysaan gis nga xa xaama ne gars yi ñu dof dof loon maa ngi Mathia <laughs> Mathia nekkal si jaamu rek. li xale yi naan bàyyi naa la tout tranquillement bàyyi naa la. moom moo moo ma doon kii rek waaye gars yi après calmé nañ ko paa yi nekkoon foofu wax mu bàyyi ba si biir man du ma dem palais di toog ak ay kilifa di xeex. dépassé naa foofu. Ah, non tooñ moom du ma ko def mën naa mbalak waaye tooñ du ma tooñ wala bu ma tooñee damay ñëw baalu da ngaa mos a fekkee fu ma tooñee. waaw xam nañ tax booy bi xanaa booy bi yabu la yab ñëw rek. mën na maa bañ a yab mën naa juum voilà mën na maa baña yab mën na maa mën naa juum. mën na waaye mën naa juum. tool dafa bari trop tamit. ñuy coow seen affaire la ñu coow yàlla na leen yàlla defal jàmm man coowuma Kara loo xam ne nag man dam kaa dégg mu dese maa leer tuuti samay nopp sa digganteeg Sokh ak Tapha Mbeur sëñ bi Sokh démb ñu ngi déggoo téléphone lu yàgg suma goro la non moom ak sama jabar ak suma maga magu jabar ñooy ànd guddi ak bëccëg sama jabar nee na ma kii sa goro la mag soo xootaan nañ lu mat deux heures de temps ma ne ko faral fi nga far ma far fi ma far waaye teewul ñun bëri bu ñu yàq làmb xam nga dama ne ñun bëri bu ñu yàq làmb man ma daa faral kee faral Sonko nañ nañ ko nañ ko waaye nañ ci génne làmb kuy wax na nga wax en tant que yow yaay wax waaye bu wax di yóbbu tuuru làmb ay damaa dem ngir làmb ay damaa dem ngir président amateur ay damaa dem ngir président lutteur ay damaa dem ngir président CNG damaa dem ngir président jeune lutteur yëpp nañ ko si génne ku yëpp politique politique al te lépp lu ñu mën a wax si émission bi tamit bu ñu fàtte ne Gora Ndoye naka dundaay dee ko abal làmb ci bàyyi Gora Ndoye mu doxal waaw dundaay dee doo lekk doo for pep ba pare di for pepet waaw maanaam munoo lekk ba boo bal ba bool si bool ba pare ba mu jeex nga ñiit ko ñiit ko ba pare doyatul nga yëkkati ko di bu a mar loolu moom duñ ko nangu ñun. na bàyyi góor ndoy muy doxal góor ndoy bu doxalee ba ci yàgg après bu jugee jox keneen waaw. su ma déggee si wax maanaam nguur nguur xale ko yor. mag sax mën na kaa yor waaye yow yoral li nga war a yor boo paree dem. dafa mbër su ma rombee dañuy béggante man ak moom ah ay fi mom da far ci kanam di wax ma far sama kanam di wax rek. far nga far nga sa kanam di wax mom far ci kanam di wax. xamal la lay xamal. Macky Sall laa faral. Eh? ah lo nan eh mais na xamul yu problème gis nga yeen yeen yeena yak Sénégal xam do ne yeen yeena yak dama faral far Macky Sall laa faral nga eh mel ne damay jaay lu bon leneen la lay xamal. Sonko ak Macky Sall Khalifa Sall Karim Wade ñi xëccoo Sénégal yëpp jëluñu ko pour yàq duñ kaa bëgg a defar idi ñaata yoon nga ngéem bu faral ko dem ñu daan ko nekkul nit day faral nit rek koo koy gaye mën naa faral Macky mu jël réew mi mën naa kaa faral mu bañ kaa jël ñi ñi ànd ak Sonko yëpp mën nañoo faral Sonko ñu ñu mu jël ma mi mën nañu mu bañ kaa jël waaye man damaa ne la Macky laa faral Sonko ku ko xool xam na ay waajuram dañ kaa yar na ne yaru na ku ko xool xam ne ku tee waaye faralu ma ko yàlla na ko yàlla billahi wallahi wa taala yàlla na yàlla defal jàmm Sonko ak ñi ko faral yàlla buñ dëkk ci danger yàlla nañu am jàmm gu baax a baax Sonko garde rapproché sama xarit la garde rapproché su ma doomu ndey la. te man jullit laa mënu ma kaa lu bon waaye sama baat ni poto barki see Ahmadul Bamba Xaadim Rasul Sonko ñu ngi koy ñaanal jàmm waaye Macky laa faral surtout waaye la man duma ma béninois du ma togolien du ma ghanéen sénégalais am xol ak xëtër di bëgg bëgg Macky waaye bu làmbu xaajee man bu ñëpp faree fa sax man Macky laa faral. leneen li may wax mooy ministre de la jeunesse yàlla na ko yàlla defal jàmm Sonko bu fi ñëwee bu fekkee Sonko day toog ci réew mi day am ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse yooyu dañuy am xarit boobaa tamit Sonko day am ñu ko bëgg te dañ koy nangul boobaa mooy nekk sunu président wala xamoo li ma la dëkk bi nañ ko bees teg ko ci jàmm. lépp loo xam ne exemple laa lay wax ñun ñëpp mën nañoo faral mag yi yàlla ne Sonko mooy réew mi bu fekkee dañoo yàq lépp bu ñëwee du liggéey lépp lay defaraat sa mandat jeex ñu ne la fekk liggéey nga li gaa am lu mu fi def fi Abdou fait fi Sonko li Abdou laa di ñëw fi li fi Abdou defar Macky Sall ñëw bàyyi fi laa war di defar léegi bu fekkee Sonko dafa war a nekk président ñu war a ànd ak Sonko yàq li fi laay wax de Macky Sall defar léegi Sonko bu ñëwee du defar day defaraat. non dañuy waxtaan sëñ bi man waxuma xam nga tamit yow yow man bul ma dugal. dama ne la dama ne la duñ exemple boo gisee ñi xeex ñuy xool yëpp dañ naan ay ay libéré Sonko libéré Sonko fii kenn tëjul kenn yàllaay tëj yàllaay tëj te fii képp ku fi àtte boo dee di nga àttewaat. yaa ngi déglu ñii dañ leen fay teg rek ñu toog si tey si chaise ne kuy maanaam di di def ay heures maanaam di pratiquer rek waaye yàlla mooy dogal yaa may déglu man maa ngi ñaan ku xool TER bi xool BRT bi léegi xalaatal Macky Sall defar na TER defar na BRT defar péage bi defar leneen nag leneen su ko fi Sonko bàyyee bu Sonko ñëwee xam nga lan lay defaraat moom ay tëli yoo xam ne day jaar si biir ndox mi ak ay tëli yoo xam ne si suuf la war a jaar wala xamoo li ma la expliqué xam yooyu amagul te Macky Sall defar na yoo xam ne nii exemple ay yoonu boppam lay jël Macky Sall li mu fi defar amagul Sénégal waaye bu ko fekkee Sonko da ko fee bàyyi ba yàlla def ñu ne yàlla ne Sonko mooy jël réew mi Sonko bu fekkee moo koy jël man Macky laa faral léegi Sonko bu ñëwee danaan ah kii defal dafa na Ila Touba léegi man xaaral ma créer ma créer loo xam ne si su biir suuf si lay jaar bu defee ñu ne Sonko moo fi defar lii wala mu defar benn télé boo xam ne day jógee dakaar ba ay ba ay fi géej gi yem wala ngay dem Ndar wala ngay dem Casamance wala fenn ñu ne la léegi télé si biir télé bi ngay jaar wala mu defar batu gaal yoo xam ne boo boo boo départ rek day dugg si biir ndox mi ba fi nga war a egg mu génn yooyu yooyu la ñaan Sénégal. waaye bu fekkee dañoo yàq yëpp bu ñëwee du defar loolu day day day day réparé après ñu ne liggéeyul dara fekk liggéey la de yi yàqoon la defaraat. yàqoon la defaraat waaw. léegi bon message ngay lancer ñi nga xam dañuy wër di yàq. xam nga dañuy wax xaw ma patriote ñooñu waaw patriote ñooñu yàquñu. mës ngaa gis ku takk baraza yooyu ñu am patriote la. waaw nga dem di taa mës ngaa gis ku takk baraza dem di toj mës ngaa gis ñu nekk ci télé bi di débat di toj booy ñiy grâce yi déem te man li gën a naqari Kara doole day dem Europe takkale ba am benn vingt million ñibbisi si ci nga ne yow da ngay mars takkoo moor sa ñëw daaji biik itam yóbbu ko dem jaayi ko dem ci osan yi te wóor na yàlla jamono ju metti métti bi mu toll fii nii ñu ñëpp ko yëg xar foo daa romb da ngay gis xar borom xar yi ñëwuñu ndax dañoo ragal waaw léegi xar yi fi xar doon nekk ay ay ay ay ay lañ fa teg <laughs> wala dara li da ngay daa dégg dara lu xar yi ak dara lu nag yi léegi dara di da nga dara lu gendarmerie ak dara lu policier waa dara lu GIGN yi nee ma ndax lan ndax bëgguñu dëkk bi yàqu ñoom tamit ñu leen di masaw bu baax na sonn nañ torop nga gars yi dañoo xeex xeex bu mujj waxoon gendarme yi ak policier yi ndeysaan dañuy xeex bu mu gi da ngay gis ñu jouer théâtre da gis booy bi taxaw fee naan la nii gendarme yi naan nii mu gi après ñu dem di constaté Sénégal jàmm moo fi nekk ñun mën nañoo bëgg yàq yàq yàq yàq rek waaye xool trois jours duñ ko romb am na xiif noppalu ji ak taxaw fiis booy démb noo xoolal bam ñu dàq jee booy bëri yi taal nii jour vote bi après añ la ñuy yeewu am ñu quarante ma doomu bàyyi dëkk bi mi ngay xool damay conseil ñëpp ku fi bàyyi paay ak yi ak jéeg yi yaakaar na booy taxaw si kaw teel nga ñooñu di ñooñu di kii koo si ne voté mu ne waaye man faruma votélu ma kenn. billaay duñu voté bi maire ak yi boo bëggee dégg dëgg ak jeeg ji ñooy voté waaw yow yow yow yow jeeg nga. jëwriñ ki bàyyi faa waaye yow jeeg ndax yow. li ngay wax <laughs> idi sax xees bi yëpp xam nga lan la yow xeesoo da ngaa furi da ngaa furi <laughs> xam nga xees xam nga xees waaye yow da ngaa furi furi est-ce que gis nga leen nga xamante ne damaa osé ni ma tourné ak yow émission yi. waaw ñu ngi ñaan yàlla jàmm. di kilifa diine yi kilifa aada yi di wax Sénégal yàlla na ci yàlla def jàmm di ko ñaanal ñëpp di la ñaanal jàngu bi. idi dëkk bi daa am ay kalante. tukulóor baag jàlloo njaay ak jóob faal ak leneen ak leneen. loolu buñ ko dindi tey bu fekkee dañuy mars ku taxaw fee sant ba ma taxaw fi sant Diallo mu dóor ma xeer billaay boo liggéey da koy gis képp koo xam ne mës naa taxaw sànq daa am sam benn booy li ma lay ni dama bëgg nga génne ko muy tudd trompeur mu nekk écrit que Massa ñoo bokkoj bu ndaw daf ma woo téléphone do asafra do ñoo daje mu ne ma garant ne ah, mu ne ma dama la ñaan ngir yàlla rek xam maanaam bu buñ la joxatee émission ngay wax léegi léegi bul bul bul yàqati kenn dara na rafet rek ma ne ko amul poroblème parce que keroog toog naa géej am benn waay bu ma woo numéro am jeexee 18 maa ngi lay nuyu su fekkee déglu nga émission bi nga waat ma maa ngi lay nuyu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ak yéen bi daf maa woon ne ma da ngaa damaa dégg ngay wax ci Tapha Mbeur mu ut sa numéro dama laa bëgg waaye paysan nga toog dégg ku wax saaga la. te du ma neex ma lay ñaan ngir yàlla xaw ma la ma waaye boo dee defati émission dema si seet seet seet naa la ci ndax mënoon nga ma woo saaga ma ma saaga la mu jeex commentaire yi nag du ma ci wax dara ndax keroog ba mu ne président Macky Sall maa ngi lay ñaan diggante Sonko ak Adji Sarr bu fekkee mooy taal dëkk bi nañ ci def jàmm boobu ñu faral Sonko sax dañ ma doon woo di ma estati di ma bëndal jaajëf léegi ñi ne ki la wax jaajëf bu la saagaa suba garaaw ndax tàggoon na la démb am déet suba suba suba Macky Sall bu ko fi yàlla jëlee bu toog mandaam ba mandaam jee bu fi jugee Sonko ñëw tamit suñu président lay nekk te dañ koy tiitaroo di ko safoo mun du fi nekk maanaam nekkul tey comme exemple tey ñu ne doon na président ñu mere ko de dañ koy tiitaroo di ko safoo yaa may déglu yàlla na yàlla def jàmm waaye ma xamal la ne la suma xol bii li ciy nugum nugum li ciy nugum nugum yi ak di ko gunnaandaat wax dëgg yàlla ak bi su ma nee la président Macky Sall ak ministre de la jeunesse ak Me Tamaro Seydi ak Maguette saw suma soxna rek laay top loo may wax. waaw émission bi nag ku ko dégg nga xam ne lépp lu ma fi wax tey li muy rëy rëy lépp may naa ko ministre de la jeunesse ndax dëgg yàlla ak yeneen bi ah ba ma ko xamee ba tey wàññeeku ma damaa yokk waaw di wax sama di wax tamit suma jigéen suma rak aji numbe borom ñàgg lagros tuwaan pël ah am naa xar waaye amaguma buum de Idi su ma nee la kontaan naa loo may wax waaw ah, yow ñu waaw kanji daane ma Kara dinaa la jox lu dàq làmb eh? ma ne ko lan dama lay dénk ay bërëb nga xëy di ma ko vérifier loolu loolu loolu moo dàq neex waaye yow waxal. waaw. ku ko joxal. Kanji. sa waay nee na. ba xam bu ma yóbbantee ci yow. di ci jot ma ne ko waaw. mu ne moom amul problème. waaye daa bëgg caméraman bi am xar. waa boo ñu joxee xar ba pare bu desee rek am problème. waaw boo ñu joxee xar ñun ba pare. su desee am problème. waaw ah, dégg na ko say ah. am nga ay nit waaye say nit laa bëgg ñu teralal ma waa ji muy samay nit maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yeneen bi journaliste bi seet si ma ne daf bëgg ñu teralal ko caméraman bi boo leen ma terale ba pare bu desee ngeen teral ko yàlla yàlla def jàmm sant naa ñëpp di nuyu di nuyu di nuyu di nuyu suma doomu nday Maamoor bu Faas maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa Idi xalil di bëggewaat ñëpp de nga nak li Kara wax né ay nitam <laughs> buñ ko joxé bam dess des <laughs> ñu gërsu la waye man sama nitu bopp laax nak né na la ibrahim Thiaw sa marché asalem wu ma dara xarum tabaski rek jox nga joxal mako ibrahim khalilullah kessé kese kese kese kese xaritu yalla bi kese la bëgg mako joxal xal kese. Idi li may wax daf ma ñor so bëggé am xar li may daf ma ñor. khalil xale lii dama bëgg nga daggal ma ko spécial ministre de la jeunesse dama xamante ak moom ñu nekk man ak moom mu nekk ku baax nekk suma nit waaye dafa tax nit ñëpp ñu ngi ñëw di ma demander seen soxla te man amuma sax ba leen di bàyyi am lu ma leen di jox mu may compal nag maa ngi sant yàlla bu wér waaye ministre dama bëgg nga dooleel ma même bu dee ay pompiteer wala po soble wala leneen ak leneen nga jox ma ko ma jox ko sumay nit te daan dajul suuf képp ku ma gis Kara doole bu Pape Malick Ndour te daw ma ci dara daw ma débat daw ma dara ay kon nag damaa bëgg kuy jaay par kuy ànd ak kuy jaay parfum da ngaa war a xeeñ xeeñ parfum waaw mooy loolu li naan jaay fonde amul pertement boo ci amul bénéfice rek am ca la ca des yal na yàlla def jaamu barki maam Seeram Fall dégg na ko jaajëf jaajëf Khalil mi ngi noonu